mboolem goxu géejawaay yëpp yëpp yëpp xarit am di jàmm dëkkandoo ak mbokk fas yéene ko partagé ak képp koo xam ne nii yaa ngi wax ashhadu an laa ilaaha illallah wahdahu laa sharika lahu ashhadu anna muhammadan abduhu rasuluhu ñuy ay jigéen ñoo xam ne nag ay jàmbaar lañu yoo xam ne seen liggéey ak seen euh, organisation ci cadre social moo tax ñu bëgg ñëpp ñëw déglu seen thème te inspiré wu aussi ci euh, seen solidarité dans le cadre du partage dans le cadre bon pratiquement euh, jàppalante bi nga xam ne moom la def ñoom nag euh, comme ni ñu koy waxee rek ñoom dex lañu ci seeni i seen borom kër ndax njëriñ lu dex am rek ñoom amal na ko seen seen seen borom kër kon ñuy wàcc suñu kàddu foofu. jox El Hadj Salif mu dugal leen ci euh, organisation bi ak euh, programme bi. awuzu billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani gannaaw bu ñu sante borom bi subxanahu wa taala julli ci seydina muhammad sallallahu alayhi wa ñuy yëgal mbooloo mbooloo mi ak waa senegal waa Géejawaay waa Pikine ne conférence suñu lingeer yi bu si juillet bu ren thème bu ñu tànn mooy droit et devoir des époux maanaam àq ak yelleefu waaj dencante ci biir ci biir préparation mariage conférencier bi ren comme at yi passé Tafsir Abdourahmane Gaye modérateur bi di imam Mor Fall imam cité Hamo Tefess programme bi nag nii la bindoo 17h suñu julee tàkkusaan ci la invité yi ñëpp ñu dalal leen suñu demee ba 18h ci la modérateur ci lay commencé waxtaan bi daldi di introduire président Ahmed Demba Sow suñu demee ba timis jot ci la invité yi ak autorités yi ak kilifa yi yi nga xam dañoo wuyu ci Linguère yi jël kàddu suñu paree ci loolu la conférence bi démarré ñu fàttali conférence bi tafsir Abdourahmane Kayl ñu ngi ñaan mbokk yi ñëpp nañu teewe bés bi bu ñu fàtte bés bi le 6 juillet 2019 la ci amoo tefes woote bi woote Linguère yi la waaye woote woote borom kër yu Linguère yi la allahuma salli ala sayyidina muhammad bu loolu wéyee ma jox kàddu gi soxna Ami Diaw mi nga xam ne mooy chargé communication des Linguère la amoo tefes. bisimilahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabil alamina ñi ngi sant yàlla bu baax a baax a baax ñun lingeer yi jigéen amu tefes di julli ci sang bu tedd bi sallallahu alayhi bi ñu yàlla mayee ñu fekkewaat suñu conférence bu mag bii ñuy def chaque année te ñu jàpp ko samedi le 6 juillet 2019 incha allah buñ ci yàlla yóbboo ci kàntanam ci kilifteefu nag bépp kilifa diine ci lañ koy defee waaye ren nag fa tabaarakallaahu comme niñ koy defee at mu jot day am ay kilifa yoo xam ne ni ñoom lañ koy dara jaale ren nag ñu tànn ci comme niñ koy defee at mu jot rekk sëriñ bay si Abdou fa tabaarakallaahu ñu ngi ciy teg sëriñ Xaadim mi nga xam ni mooy maduri al azar bi nga xam ne nii moom la dendal ci géejawaay di ci teg keneen koo xam ne nii day sagul lislaam bi fa tabaarakallaahu rawtin nag fii ci géejawaay muy cheikh shérif ibrahima dara ñoom lañ ko dara jaale ren waaye nag ci présidence su imaam ahmed demba sow fa tabaarakallaahu borom xam-xam bu màgg bi bi nga xam ne chaque année balaa suñu conférencier bi ji tafsir Abdourahmane Gaye di door moom mooy njëkk ubbi waxtaan wi ren nag ñi ngi tànn thème boo xam ne nii képp koo xam ne jullit nga war ngaa ñëw teewe ci bés bii pour taataan ci suñu thème bii ñu tànn ren muy droit et devoir des époux ma mën ko wax ci olof ne ni ñuy préparer ñaari way dencante yi ci biir sëy tem boobu la jigéen amoo tefes lingeer yi taamu ren ci seen conférence bu mag bii ñuy def at mu jot samedi le 6 juillet incha allah fii ci terrain Hamo tefes ren nag ñi ngi ko ne ak marraine ñii may bëgg a wax ci marraine yi ñi ngi ciy jiital Mariam njaay bu 2 stivi bu ñëpp xam ci social ak ni mu mënee taxawu ci diine moom lañ ci taamu ñi ngi ciy teg sunu doom. ñu koy wax Néné Fatoumata Tall ministre de la jeunesse di ci teg madame Aminata takkante maire commune Sam Notaire di kenn ci ñun ci parrain yi kii nga xam ne nii nag moom suñu kilifa la di suñu càmmiñ yàgg ñoo gunge yàgg ñoo dimbali yàgg ñoo jiite yàgg ñoo jàppale ci suñuy conférence ak lépp loo xam ne nii Linguère yaa ngi ci dugal seen loxo di ci yëngatu muy le général de division aérienne Birane Diop chef d'état-major particulier de monsieur le président de la république di ci teg monsieur Medoune sey di sunu doom di sunu dëkkandoo ñu fiy teg aussi monsieur Aline Diagne directeur général ak sa Sénégal ñii ñooy suñu marraine ren ak suñuy parrain ñu ngi ciy woon nag bépp jullit bépp jullit rek ñu ngi lay woo ci suñu bés bii nga xam ne nii ren ñu ngi ko jàpp le 6 juillet fii ci Linguère tefes yi ñi ciy woo julliti yàlla yépp yéen julliti yàlla yi niñ leen ko waxee léegi rek suñu woote bii ñuy woote si suñu conférence mag bi nga xam ne ñu ngi ko jàpp samedi le 6 juillet fii ci teeron ama tefes Linguère yi di ko di ko organiser dafa am suñu kilifa di suñu càmmiñ di suñu góor goo xam ne nii fa tabaarakallaahu monsieur Alioune di sunu maire de la ville koo xam ne nii loxoom mësula jóg ci jigéenu Hamo Téfés yi moom nag mooy parrain bu mag bi fa tabaarakallaahu ñu ngi koy ñaanal yal na ko yàlla dolli sutura ci bàkk Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam asalaamualeykum wa barakaatu maa ngi jox kàddu gi sama mag Adja Ndeye Fall jërë ngeen jëf. auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim. ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di baalu àq ñëpp di baal àq ñëpp di wax yàlla nañu yàlla boole baal sunu mbokk jullit di bis bàngook ñu ngi woo bépp daayira muy tiijaan muy murit muy xaadir muy ñaseen muy laayeen bàyyiwuñu kenn bépp daayira buy yëngu si ci euh, diine ñu ngi lay woo ci suñu bis bi le 6 euh, juillet ci tefes ñu ñun waa Linguère tefes yi ñu ngi woo bépp association bu bu bu bokk ci gox bi ku lim da ngay juum wala doo matale mais képp kuy association te bokk ci bi rek ñu ngi lay woo bàyyi wuñu kenn ñu ngi woo ñëpp di nuyu ñëpp di ziar ñëpp di wax ngeen ñëw wuy suñu suñu bis bi le 6 juillet yal nañu yàlla may taw féex ak taysiir ñu fekk ko ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jërë jëf